Rafah TV ñëppay dañ agréer kër gii di Senelec na sëre yokk njëgu courant bi way consommateurs yi jaaxle ci lool jaaxle gu metti ndax tàmm nañ courant tàmm goo xamante ne buñ leen ko yokkalaatee dana metti ci ñoom lool ndax kuy taalal ci jant bi di mar saa boo xëyee di sabab lu yóbbu sa kër buñ jokkee njëgu courant bi dana metti ci sa côté lool lool ba tax na lii lañ ci wax. buñ ñu mënee dimbali bañ koo yokk de moo gën. ndaxte ay liggéeykat yu liggéey ba retraité lañu ñeneen ñi ne ci marché yi ñeneen lu ne lu ne xew ci adduna bi kon na ñu xëy xëy ne dañuy yokk courant bi man de weer yi ñu rek fay naa fukki junneeg benn ndax dañoo bloqué woon suñu courant Touba bii bañ noo jox courant ba ma am fukki junneeg benn ma fay ko. ndax gis nga daanaka fi dabroom kër goo fi gis day fraatu rek booy bu fekkee nag da nga yor da kër gu mag di fraatu bëgg a yor sa ñu ne dañuy xëy xëy maanaam yokk ab courant loolu problème la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ñu ngi koy xalaat waaye nag dañuy ay baat la yoo xam ne fañ ko war a jooyee mënuñ fa egg lii ngeen def sax ñun ñu ngi koy rafetlu lii ngeen def tam xaj na eh, bu ñu waxee ñoom daañ ñu déglu waane tey courant bi buñ ko yokkee danga nga dégg ñoo xam ne daañ xëy seen courant dañ koy dagg ndax fi mu ne lim la wax léegi nelaw bu yàggul rek fay na ak fukki junni ak benn man fukki junni laa fay ak juróom ñenn yokkum courant bi nag li ko waral ñaari mooy leen xanaa ñàkk moom suñu bopp rek parce que réew mi daal bu ñu yaakaar naa bu ñu jilifoon seen bopp ah yokkum courant bi lii du boo gisee yu mel nii yëpp mooy mooy waral ni euh, ja ñàkk moom ñàkk moom suñ bopp daal moo ko waral bu ñu moomoon suñu bopp dëgg dëgg dëgg ay jafe-jafe courant problème boobu duñ ko am war nañ ko mën a dépasser daal. ñenn ñi gis ne courant tàmm nañ ko tàmm goo xamante ne suñ ko bëggee di ko yokk dana metti ci ñoom lool te ñoom sax kat ak séentu lañ ci amoon mooy wàññi lañ xalaatoon waaye jëm ñu woon seen mbir ci lii di yokk kon donc bor bi je crois que ne ñoom waroon nañu mën a xool beneen pexe bu ñu ko fay parce que boo xoolee bi ñu yokkee courant bi même pas mois la yokk yàggul ñu retourné waat yokku TVA bi mu metti lool bu ñu ko retourné waatee bëgg ci yaakaar 10 pour cent mais waxuma la non seulement ñi utiliser compteur mais ñi nga xam dañoo war yor woyefal rek dañ ci daj loo xam ne ni kenn mosu koo daj donc ne ñun Sénégalais yi ñoo war a fay bor boobu nga xam ne ñun ñoo ko yore ñun yorewuñ ko liggéeyuñ ko yoruñ ko ñoom kon donc ñun lu loo yorewul nag mënoo koo fay ci walaakaana mu mel ne man nga xam ne mën na maa lekkub sarax moom ku nu dimbaleetul daal wàññi ko daal wax dëgg yàlla yokk gi moom gënalul ba doole yi métti na ci ñoom na na ko gouvernement bi jéem a solutionné nu nu ñu ñu ñu ñu defar ko ba ban ba nga xam ne nun daan mën a am courant ndax courant fi mu nekk nii moom mi ngi mel ne ab dépense rek mënu mënatuñ koo ñàkk ndax kër goo dem ay nangami télévision nga fay dox bu ñu nee xëy xëy na dañ koy yokkate day métti ci léegi nag factures yi dañoo dañoo tardé ma lu toll noonu mu mit ci man lool bu ñu demee ba bëgg koo yokk nag tey nañ la ñuy def ak fan lañ jëm yow da nga ne anale waan nag man ragal naa ne xañ na ak gouvernement bi tim xanaa awoon cee dugal loxoom maanaam dawa da wax ak ñoom ndax ñun ñi ngi nii daanaka ay nit lañ yoo xam ne xëy ñu gontuñ. non courant moom bu yokkoo parce que courant ci la lépp dépendre yaa ngi dégg courant ci la lépp dépendre parce que ci la ci la oto yi dox gasoil bi ci lay dox. ci la ñuy courant ci la ñuy fonctionné mburu mi pétrole yi na maanaam lépp ci la ci la jox moo def ci la lépp dépendre moom bu xasee yokk rek obligatoire lépp a war a yokk. état bi war na ci mën a jàpp bu baax parce que war nañ mën a gestu xool ñoom tamit lan mooy seen rôle ci loolu te ginnaaw bon état bi peut-être wax ci te dañ naan le premier décembre lañ koy yokk bo kon donc am naa ne man fa may gisee mooy politiciens yi nga xam ne opposition lañ nekk ñoom kon dañuy wane ne lii ñoru leen. li leen ñor mooy seen bopp bu doon bu doon ci waxi politique la tey nga gis ne ñoom ñëpp ñu taxaw di wax naan nañu woote di génn mais mbirum askan wi la loolu soxalu leen kon donc ñu opposition bi ñoom seeni wax kon moom donc mënuñ koo gëm sax fi mu toll nii. ñii di way jëfandiku yi dañ koo metti lu lool lool ñuy yuux wàllu kilifa yi fu ñu ko mënee wàññee ñu wàññi ko waaye yokk di moom jëmul kër ndax lañu doon fay seeroon na lool lool lool lool ñu ci yokkaatee dara rek day metti ci ñoom. dañ